ndax wax deug soxna sama amazon bi wax dëgg bugguñu dara tal ko jaajëf kaay Ousmane Sonko nag lim leen doon wax ci dama def live ay live ah, dimanche cantaay dañoo bëgg beddeeku dañoo bëgg a yoonu murid ak dañoo bëgg indi seen seen yëfu bopp man soxna si wax dëgg ak soxna Bato ak soxna Adja Saliou man damaa yéemu ci ñoom li tax ma gis ben kër bu rafet kër bu yànj boo xam ne almadi la kër gu rëy 1200 mètres carrés soxna bateau dem jëndaat beneen kër beneen terrain bu ko wër bi wër kër gi wala bu dend ak moom mu jënd ko xam nga lu tax ngir bañ dara dend ak ki ma mën a tuddee la reine mère. gis nga boo ko liggéeyalee benn mu fay la junni man loolu laa gis ndax soxna si kat man dama yaakaaroon ne. dootul dese dara ndax koo xam ne daaw màggalu daaw def nga ci un milliard. ñun li ñuy digal soxna Aïda jàlloo mooy comme moom am na ay taalibe am na ay jigéenam yoo xam ne ñoom dañ koy wax ne yow yaay suñu sëriñ loolu nag moom mooy dérange ñu bëri ndax soxna soxna Batoor nee na soxna Aïda Diallo mooy sama sëriñ. la wala boog jàng na droit soxna Batoor mais di la làkkal ay English yu doy waar. tout est dans le mais kër gi bu ñu la wanee cuisine dafa am cuisine américaine ñu ne déet boo xoolee frigidaire yi moom la xam nga xam nga soxna si wax dëgg man dama ko fan te loolu kenn mënu ko dindi ci mag ci la murid laa kenn mënu dindi ci man ni murid laa xam nga xam nga soxna si daal ñu li ñuy wax mooy bàyyi leen jàmm xam nañ ne nag nekk nit ñi ñu koy jéem a fexal dinañ def lépp pour yàqal yàqal gars yi nag li mu leen di wax nag mooy dee leen di partager euh, dee leen like parce que tamit ñun nii lañ mën a def di leen indil xibaar yi dee leen partagé leen partagé dee leen like. You better run, I'm taking business. You better run, this. Número uno, número ah, número uno. ko waaye tey balaa may wax ci Sonko beneen xibaar bu leen bëgg wax ci damay ñëw wax ci soxna Aïda mooy soxna si may wax ne mooy sama Amazone sama xeexkat sama bañkat soxna soo xam ne wax dëgg fan yi dafa bëri ay jafe-jafe waaye man nee naa leen soxna si dama ko yàgg euh, naw ndax moom dama ne kii c'est un maanaam mag la boo xam ne dafa bëri xam-xam dafa jàng nasaraan fexe moom du du mbàkke mbàkke du dara moom sax da koy wax moom danaa noon géwal laa woon géwal bu ñàkk solo waaye fexe na ba sëñ Saaliw daadi ko jël uuf mu fexe ba am yëfam ba tey sax ñu naan cantaay dañoo bëgg beddeeku dañoo bëgg a yàq yoonu murit ak dañoo bëgg indi seen seen yëfu bopp waaye man soxna si wax dëgg ak soxna Bato ak soxna Adja Saliou man dama yéemu ci ñoom li tax ma yéemu ci ñoom mooy li tax ma fan soxna Adja Diallo nag laa gën a fan mais ñoom ñetti ñëpp laa fan mooy ne man dama gis ni ñii ay sëykat lañu man du yëfu murit sëñ Mountakha wax na lii sëñ Mountakha wax na laa man wax naa leen en tant que murit sëñ Mountakha wax ci laay and waye man soxna yi li tax ma naw leen li tax ma fan leen soxna Aïda Diallo nak man ma gën ko fan moy ni dañu mëna sëy man lima ma jaaxal mooy yaakaaroon naa ne Cheikh Béthio bu fi jógee ñu bëri dañu yaakaar ne comme soxna euh euh mbossé ak benen soxna ci soxna yu gëna mag dañuy bàyyi li fi Cheikh Béthio waxon ne soxna Aïda yaay waay man man ma yow dañu yàq dañu yaakaaroon ne soxna Aïda Saliou ak soxna Bato dañuy bàyyi soxna Aïda Diallo comme soxna moose ni mu def ni mu def waaye tey la waalo gën a aay ndax tey dama yow gis benn kër bu rafet kër gu yànj boo xam ne dañu almadi la kër gu rëy mille de cent mètres carrés soxna bateau dem jëndaat beneen kër beneen terrain bu ko wër bi wër kër gi wala bu dend ak moom mu jënd xam nga lu tax ngir bañ dara dend ak ki ma mën a tuddee la reine mère la reine, l'impératrice de Tchata. muy soxna Aida nous kër gu yanj un milliard gi piscine yi jardin mais cinq chambres cinq chambres dominées mais master bedroom la chambre de la de la reine mère boo nga gis photo soxna Aïda Diallo ne fang ci miir bi nga gis sox photo defe naa Cheikh Béthio photo mi ngi fa tamit vraiment li boo ko gisee sa yaram dafay daw ñii jigéen ñi loo xam ne soxna Batoor wax na ko ci boppam lii ay nitu àjjana la man loolu laa gis soxna Batoor nee na ko lii àjjana la waaw ndax man soxna si man li ma sama jàngat jàngat bi ma jàng mooy gis nga sëñ Touba boo ko liggéeyalee benn mu fay la junni man loolu laa gis ndax soxna si kat man dama yaakaaroon ne dootul dese dara ndax koo xam ne daaw màggalu daaw def nga ci un milliard jënd ay nagi nagi nagi nag ren ñu naan est-ce que dina ko mën ak du ko mën ndax coow lu bëri ji beddeeku bi euh, njabootu sëñ Saliou ci dem dem beddeeku waaye soxna si waalo tey la gën a aayati ndax ren màggal bi dégg naa ñu naan def nañ ci ñaari milliards rek def xaw ma lu ñu ci def nagam yi waroon yóbbu Touba ñu ne ko doy na yóbbu Ngaabu ñu ne ko doo fi doo fi màggalee Medinatu Salaam doo fi màggalee waaye tey gis nga gis nga am na ñoo xam ne da nga leen di jéem a xeex ba sonn mais gis nga yàlla bu la tàccoo da ngay fecc par force soxna si tey da gën a am victoire ndax may nañ fi oto bu ni bu yànjit soxna Batour moo ko may xaw ma ñu ne déetawaay mais euh, euh, almadi kër guur rafet boo xam ne gars yi dama bëgg ngeen xool photo yi dama bëgg ngeen xoolal ko seen bopp soxna Aïda Diallo ci boppam ah soxna Batoor ci boppam di ñu won ah, ah, la visite ndeysaan des lieux ndeysaan li ñuy wax euh, virtual tour lii du virtual tour une une visite virtuelle kii visite visite physique la moom ci boppam moom moo xam une femme pleine de classe ndax soxna Batoor dafa jàng ba ne ar

vraiment dañu war a bàyyi di jàpp soxna si di ko lu ne ñu koy wax ci seytaane laak jigéen warul jiiteeg dugg na fii génn fii ñun nag li ñuy digal soxna Aïda Diallo mooy comme ñoom dañ ne buggul bugguñu ngay wax sëñ Touba bugguñu ngay wax sëñ Saliou ñun li ñuy digal soxna Aïda jàlloo mooy comme moom am na ay taalibe am na ay jigéenam yoo xam ne ñoom dañ koy wax ne yow yaay suñu sëriñ loolu nag moom mooy déranger ñu bëri ndax soxna soxna Batoor nee na soxna ay Diallo mooy sama sëriñ loolu nag moom la lislaam ak ak yenn kii bëri bu ñu ko nangu mais nag nit ki bu fekkee dafa jub sell deful dara lu dul jaamu yàlla deful dara lu dul jox nit ñi ñu lekk te sama papa da koy wax jaamu yàlla bi gën a rëy mooy ngay berne ngay jox nit ñi ñuy lekk soxna si nag bu dee dafa am ay taalibe yu bëri yoo xam ne ñoom yéewan nañu di ko di ko jëndal këru milliard lii dafay wane ne moom dafa am doole man yàgg naa la wax ne soxna Aïda Diallo li mu am ci taalibe soxna ñoom sëñ Saliou Thioune amuñu ko du question dañuy tuutal ñoom sëñ seen baay moo ko bëggee woon nii seen baay pendant des des années et des années moo dooleel soxna soxna Aïda Diallo am message boo xam ne da koy véhiculer ba soxna Batoor mais soxna Batoor moo gën a jàng soxna Aïda Diallo soxna Batoor dafa taaru comme soxna Aïda Diallo soxna Saliou Adja Saliou moo gën a jàng defe naa école soxna Adja Aïda Diallo mais terewul ñoom dañoo nangu tarbiwu nekk ci ginnaaw mais loolu nag c'est parce que dafa am lu nekk ci moom am benn force bu nekk ci moom ñu bëri ñu ngi naan da ngaa fan soxna Aïda Diallo te ngaa dem jébbalu ji nekk tant cantaan xam nga mais dama leen wax man musuma dem Medina Salaam musuma gis soxna euh, Aïda Diallo mais dafa am yëg-yëg bu man fan soxna si wax dëgg man dama ko fan te loolu kenn mënu ko dindi ci man murid laa kenn mënul ci man ni murid laa xam nga soxna si daal ñun li ñuy wax mooy bàyyi leen jàmbur xam nañ ne nag fi mu nekk nit ñi ñu koy jéem a fexal dinañ def lépp pour yàqal ko lépp dañ ko def pour yàqal ko ndax kër yi muy am gars yi dañuy ñu si bëri dañu yaakaar ne fi mu nekk ni buñ ko tëjee wala ñu ñu mara détail ñu faagaagal ko taalibe yi dañuy dem ci sëñ Saliou Thioune wala dañuy dem feneen déedéet taalibe yi du ñu dem fenn ñii dañu am seen mbiru bopp ñu nag soxna Aïda Diallo lu ñu koy wax mooy na gën a insister si si Cheikh loolu dara mën na def yëfu boppam waxuñu ko nag mu ne day takk ay sëy waxuñu ko mu ne ay góor dañuy ñëw di jébbal ci moom ñu waxuñu loolu waxuñu loolu lépp lu lislaam aayewul jigéen moom na ko def ndax xeex ak lislaam loolu dara nekk ci di bernde dara nekk ci di di màggal wala ngay gàmm comme bugguñu ngay màggal jéemal màggal màggal sëñ Béthio Thioune waaye ñoom ñoom sëñ Béthio Thioune dafa dafa bëggoon ñu ñu denc ko Medinatu Salaam kon xëy na waa Touba ba ñu xamee ne dañuy génnee dañuy génne soxna si ci euh, mouridisme parce que ñu bëri loolu la ñu wax dañ ne dañ ko bëgg dégg ci bëgg génne kon xëy na mënoon nañ ko bàyyi Cheikh Béthio ñu denc ko Médinatu Salaam ndax lu si njaag Cheikh Béthio mooy njaag Cheikh Béthio moom ba mu fi nekkee moom moo ne soxna Aida yooyaay man man maa yow mu dooleel ko dooleelul Serigne Saliou Thioune gars yi dëgg bu jotee dañ koy wax ñu Serigne Saliou Thioune dañ ko respecté parce que lu lu rafet rek lay wax doomam taawam génn na lu rafet rek lay wax pour jéem a jubóo mais ay soxna mboose ñoom ñooy génn wax ay da jàll na dem xam nga ñoom ñooy wax yooyu sëñ xaadim cuun bañ ko laajee ci gàmm bi suñu affaire bu soxna ay da jàll dafa na du ci wax kilifa noonu lay def ñun jéemuñu tuutal sox famille Cheikh Saliou Thioune parce que kenn mënuñu leen tuutal parce que seen baay moo liggéey loo xam ne ñoom yàgg yàgg duñu mos a torox te milliards yi du du jeex ay da jàll wërsëgam bi mu am ak yéen seen wërsëg dafa wute ku nekk li nga war a am di ko am bu fekkee na ngaa gëm yàlla di jéem a faagaagal soxna si naan dañ koy génn ci yoon murid te déggu leen sëñ Muntaxa wax ne soxna si de génn na ci yoonu murid leen sëñ Bass Abdou Khadre wax ne soxna si génn nañ bu ñu ko waxee nag xëy na bu boobaa dañu wax ñun daal li ñuy wax soxna si mooy na nekk ci petit coin am na def li muy def te bañ a def loo xam ne dina tooñ yoonu murid xam nga ñun daal loolu lañ koy digal mais en tout cas man man damaa yéemu ci soxna yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla musal ci seytaane yàlla na yàlla ndax wax dëgg soxna si jàmbaar la sama Amazone bi wax dëgg bugguñu dara dal ko jaajëf kaay Ousmane Sonko nag li mu leen doon wax ci moom mooy dama fas yéene def live ay live ah, dimanche dimanche bu nekk dama bëgg def live live une heure wala une heure et demie une heure wala une du ko romb nag maa ngi xool est-ce que nu ma ko commencé dimanche bi su ma ko commencé dimanche bi xëy na Euh, trois heures heure Sénégal lay doon wala deux heures entre deux heures heures Sénégal te Sonko mën naa yàgg Sonko damay xeex di ngeen mën a commenter ngeen wax leen naqari ci Macky Sall leen neex ci Sonko ñuy wax mbiru Sénégal jaajëf gars yi Mister Shake njaago Sonko jaajëf na ba dimanche sañ sañ boobu da a daaneel loolu nag man waxoon naa leen ne Sonko man maay man maay njaago Sonko man maay Mister man maay njaago Sonko You better run, I'm picking up prisoners. You better run, While is number one, is one. Our mission is done. number one. While is number one capital is one. The mission is done. Paramare number one. Wal is number one. The battle is one. The mission is done. Paramare number one.